That was his fault. ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi am kontaan ak mbégte bu baax a baax tey nag mbokk yi euh, maa ngi fii Texaco seet si ki nga xam te mbokk yi mooy Babacar sama confrère la sama waay la sama xarit la depuis ca Ndoufa TV ba léegi. maa moom ñoo fa nekkandoo doon fa liggéey liggéey bi am solo waaye tey nag mbokk yi moo ngi fële ca Albourakh boom Albourakh ñu koy nuyu bu baax a baax ah di jaajëfal képp koo xamante ni mooy Albourakh ak patron am ñëpp ñoo leen di jaajëfal tey nag mbokk yi ñu seetsi ko bëgg waxtaan ak moom ci làmb waaye bëgg waxtaan ak moom mbokk yi ci actualité yi nga xamante ni am na fi waaye nag bu leen fàtte ni euh, comme ni mu leen koy waxee chaque jour rek képp koo na ci làmb ak lépp lu que lu bari koy dégg fan ni te benn kenn koo xamante ni nekk ci làmb rafetlu woo ko nekkul image boobu tam rafet na ci déggin rafetul ndax ñun ñi nga xamante ni ñoo ci nekk mbokk yi chaque jour bul xam ñaata nit ñoo ñu woo di ñu wax ci wàllu jëm ci loolu mais comme ni ma koy waxee chaque jour rek la ma leen di wax dégg nañ ko ah, ñeneen ñi ñu woo tamit aussi lañ leen di wax dégg nañ ko tey nag ñu seet ko bëgg waxtaan ak moom parce que coow li bari na ma bàyyi ko mu nuyoo mbokk yi ñu doo a dugg si waxtaan wi Babacar maa ngi lay nuyu borom Albourakh waaw maa ngi lay fay bu baax a baax a baax di la jaajëfal bu baax yow doo sama conférence sama xarit nga sama frère nga ñu sekkul lépp def ñu jóg du ngeen ñëw ba fii waaye balaa boobu di leen nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp ñaanal way dawlu yëpp yàlla yërëm leen te xaar leen àjjana ñaan ñu tëdd si loolu ab talib yàlla fëgg seen bopp waaye duñ fàtte mukk ñu caabi féete ginnaaw ñu leen ñaan suñu borom dimbal leen ban dellu saa suñu biir bu baax a baax ndax jumte du wees te desee nag suñu borom a koy sàkkul boppam nuyu tamit nañ diaspora bi yëpp fii xam foo am doomu réew maa ngi fa ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay ndax tukki neex na waaye ñibbisi moo ko daax du nuyu tamit waa alburax gi nga xam ni falaa nekk di leen nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal du nuyu la PDG Baye Ndiaye ak Abdou Aziz Alé Ndiaye bu baax a baax du nuyu tamit euh, waa ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel seen lamb bu baax a baax a baax a baax a baax ndax gis nañ liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ci lamb ndax yaakaar naa ne ku yokkul da ngaa wàññi te ñoom saa bu ñëwee ba léegi ñu ngi bàyyi seen waa ci lamb bu baax a baax a baax a baax Ousseyn Diop defe naa ne mbokk yi nuyoo bi am na solo mais damay ñëw rek balaa maa ñëw ci actualité yi sax damay ñëw alburax ni mu ñëwee andi bruit ci làmb ji Albuax ñëw tey làmb ji combat yi amateur yi bëggoon Albuax tëgg ko combat yi nga xamante ni moom la promoteur yi di xëccoo Albuax tëgg ko combat yi xamante ni moom la supporter yu mbër yi di bëgg sax di ko waxtaanee bu ko Albuax déggee rek balaa simila saala mu taxawal mu taxawal ko naka laa fay demee parce que nag bi ngeen ñëwee ni ngeen ngànkee làmb ah xaw na xaw na tiital ñu bëree bëri sax. waaw Ousseyn loolu dañ ci sant yi nga xam ne mooy structure structure Albuax bi yëpp. alburax doon alburax Events TV kese mais am na alburax boo xamante ni moo ëmb loolu yëpp di si félicité comme ni ma ko defee sànq Baye Ndiaye ak ab euh, PD Abdou Aziz Aly Ndiaye bu baax a baax avant tout alburax ay amateur lañu moo tax chaque bu ñu ñëwee ñu xool combat nga xam ne amateur yi moom lañ bëgg supporteurs yi bëgg a làmb di ko waxtaanee naan mën nag nekk mënta nañu indi ko tegal ko amateur yi ndax saa su ne lu yokk làmb lañ parce que ñoom lu ñu am làmb làmb lañ ko gën luñ mën di am si ab làmb moo leen ko gënal luñ mën di am tamit làmb la moo tax chaque jour dañuy xool li nga xam ne mooy doxal làmb jëmal làmb kanam loo xam ne saa ñu ko defee sponsor yi ñëwaat ci làmb gisaat bopp ci làmb ñu indi loolu loolu moo waral plateau yi nga xamante ne la alburax mu koy indi combat yi nga ne alburax koy proposé amateur yi muy combat yoo xam ne yu su ne ñu xool rek combat diw ak diw fu ko grand place yi toog waxtaanee ko waxtaanee ko ñu indi ko gis nga ba ñuy indi Sa Thiès euh, ak Eumeu Sène le 5 bisu le 5 mais dañu mën na ne mu indi coow lu met coow lu met ñu toftal ci benn combat boo xamante ni nii lëmbe àdduna lu xale yi di wax boo demee soirée Ibra Naajo ñu koy waxtaanee boo demee euh, fi nga xam ne mooy soirée um, ki nga xam ne mooy Samba Diarra Mbaye ñu koy waxtaanee foo dem si àdduna ñu koy waxtaanee muy Pokola Balde ak Liss Ndiago réseaux sociaux yi mu lëmbe woon réseaux sociaux yi am si ñu jóge foofu ñu naan mën naa nekk mën ne mu le vingt euh, le trente juin ba Balde Gris Bordeaux ginnaaw ba combat bi yàggee loolu ñun duñ si yem dañ si indi xale bi nga ko toftal combat yoo xamante ne nii ay combat yi noonu la indi si Arafaas guy gi dégg nga si combat boobu tamit cool lim ci am ñu créé ci ay coow ah, dër dër bi Pikine Fass judduwaat wax ji bari waat ci loolu comme bi jàll ñu ni nag làmb jeex na dootuñu gis a làmb jeex mu indi ñu làmb joo xam ne 21 juillet muy Tapha Tine Balla Gaye coow li bari lépp ñu créé ci coowal ampleur si juddu ñu ci ampleur la cour de l'ampleur coow juddu ci wax ji bari ci gis nga jeex na déwén nañ xaar alburax yeneen ci yeneen ni ci yeneen ni initiative yoo xamante dina ko créé coow làmb dina ko a judduwaat ci làmb li yëpp coow coow li ngay dégg ni yëpp saison bi ubbiwul rek bu ubbee ay coow lay le motif ak yi fi xëy yëpp gaa yi koy fàtte lamb la ñuy dégg balaa ñëw ci dama koy dama koy ah, comme li nga wax léegi combat yi jot a jàll taxaw combat ko mais ñenn ñu ci bëri yenn promoteurs yi yenn amateurs yi ak ñenn yi naan Alba day yàq lamb parce que Alba day ñëw fekk euh, mbër mi di jël juróom mu fay ko deux cent wala mu fay ko trois cent ah bu ci jugee benn promoteur dootu ko tëgg. Hmm. Ouzin loolu dong nga ko dégg si jàmbaar ñu ni jàmbaar moo yàqal làmb ji. kese yi muy fay dafa ëpp. xam nga bàyyi nañ jàmbaar ñu ngi ñëw ci alburaax. Ouzin lu ne xam ne ku xam ne ni ku ne nga ni làmb dafa metti mbër yeew préparé wu dem dën yéeg fëti fëti fu ne nga dugg mbokk fu ne nga dam fa dang-dang yi pare combat jeex am dara xam nga nga jël sa benn affaire tout de ay benn temps bu yàgg nga def ko si loolu. pour nga am ci pono pono sax problème la mais Albourakh ñëwul pour ay tëgg làmb pour ba pour juloo nan def ci lii pour am ci lii dafa pour dimbali làmb ñëw dimbali li nga xamante ni mooy ndaw ñu nekk ci làmb Ada ku ne xam nga ko champion la doon nekk ci làmb ay moto la doon yéeg ñaata mu ngi ci yéeg nekk yéeg ci ay moto Albourakh tegg na ko loolu yor oto kenn keneen noonu xam nga Albourakh boo ñëwoon tey bëgg kër ne kër laa bëgg seen objectif dañu seen objectif si focus ci yow ci kër nga wax dañu lay tëgg làmb fexeel def kër parce que loolu mooy seen objectif dimbale ndaw mu ne ndaw lu ne si li euh, nga nekk ci làmb ji ñu dimbale nga ëllëg ci biir ñaan ma ko yàlla yàlla na yéex boo fi jógee say njaboot xam ne seen papa lii la amoon ci làmb ancien gloire yi ñaata nit nga gis si ancien gloire ñu bëri amuñu ñu dëkk dañuy ba léegi ñaata mbër gis fii dégg amuñu ci làmb dañuy luye ba léegi mais albuquerque fu ñëw pour teggi li nga xamante ne mooy jafe-jafe yi nga xam ne mooy làmb mooy mbëri ñëw pour nga teggi mooy jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk ci làmb mais coolu mbëri kese lañ gis Alburakh li muy fay ay organisation yi li mu leen fay kenn du leen ko fay. mais mais mais balaa maa ñëw ci lu motif bi Arafas Arafas chaque jour saa bu jugee ci lii Arafas ci lay lay dal Arafas béykat dem gis nañ ko soirée ba mu nekk di fecc ah gi mu bëgg yéeg nekk di xeex gisaat ko ci tali bi Arafas dawal oto ba ci digg tali ba mu neex ko mu wàcc ci digg tali bi fecc andu bi na nga gisee Arafas coowul Arafas. Ousseyn. kenn ku ne da tojee sa bopp jinax. Arafas xam na ne làmb gudduñ toll biir wi la biir coow. yow mbëri fi nopp yëpp gisoo leen déggoo leen kenn du leen tëgg kenn du war a waxtaan si ñoom kenn du leen seet kenn leen def dara Ada Fass xam na ne li fa xam bi nga xam ne mooy créer coow mu koy def Ada xam na lépp li muy def li muy def nii di juddu ko si maam ay dafa bon wala soit loo xam ne chaque jour day créer bruit man Ada Fass am na si problème 2STV am na si problème 2STV mooy si signature bi ba mu ñëwee cooloon noonu ma di ko micro mu daw jaar ni ma daw jaar ni dama lay dóor coolu juddu ku ne naan Ada Fass soo jotee ak Ada Fass soo jotee jotewuñ dara su dee Ada Fass su dee ko Ada Fass day créé li nga xamante ni chaque jour mooy coow ci làmb chaque jour day indi li nga xamante ni mooy bruit day fexe téye li nga xamante ni nii mooy bés bi nga xam ne moom la yor. mais mais ak image yi ngay gis euh, ci boîte yi ak ni mu buuxante est-ce que du yàq est-ce que du du yàq image am wala boog du ko andi yenn difficulté ak par rapport ak supporter yi ñu ko bëgg. Hmm. waaye ñu ko bëgg nag rafetlu wuñ loolu parce que yaakaar naa ni euh, nit mënoo ko di bëgg ba pare ko gis yoo xamante ne nii saa su dañ koy kii xam nga nit mënoo ko gis ko bëgg ba ko gis yenn détails aada xëy na sunu borom moo ko na toog milieu mu bëgg loolu mais sans ba di ko dafa bon mais dafa mooy xëy na sunu borom bëgg mu bëgg su aada dem baali xam nga du xanaa jàpp na loolu moo ko war a soulager xam affaire yooyu mais sans ba di ko dafa bon mais sportif dëgg dafa war di récupérer di nelaw yàpp nañ ni ay sportif dañoo jàpp ni. loolu muy def noonu da koy manque respect euh, li nga xam mooy benn beneen bi stop mooy jàpp nañu bu aar bu defee suyoo day dugg si loo xamante ni nii naka sunu noonu la moo tax mais loo tax ñu ñi di ko si critiquer mais il nag tamit moom it mu changé li nga xamante ni mooy mooy dundinam parce que nekkatul aada boo xamante ne nii aada Ndakaaru rek kon ni ñu koy waxee dafa nekk aada Sénégal ñu ko bëgg ñu ngi so partout nit ñëpp ko bëgg ñëpp ko sopp ñëpp ko respect ñëpp ko jox naw bu dee ñaari nit sax exemple lañ dañ koy roy si moom bu ñu ñu roy si Ada kon war na xool li nga xam ne noonu lay comporté noonu lay dundee sans pas di ko dafa bon nag mais war na xoolaat ñi ko bëgg day werante si moom gis am na am na importance comme ni ma ko waxee rek ñoo nekkandoo ci làmb mais saa su ne war nañ a waxtaanee du càgg ne saison bi tëj na euh, mbër yaa ngi fi amateur yaa ngi fi promoteur mais tey euh, reporter yaa ngi dinañ ko waxtaanee maak moom dina dem ki keneen ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu waxtaane lii mais tey bu ñu jógee ci loolu dama dugg ci coow li parce que nag man coow li xam nga dama cee dama cee xawoon na kii mais gars yi euh, duñ duñ dañuy duñ bëgg toogaay bi mais fan yi ñu dégg coow lu motif bi dégg nañ ci suñu bopp ñun reporter yi dégg nañ ci mbër yi dégg nañ ci promoteur yi ñu gis daal benn lobby boo xamante ni ñoo nekk nee rek toog di wax ñun ñi nga xamante ñoo ci nekk sax ñu loolu yëguñu tunuñu mu dal suñu kaw xam naa ne appel yi nga jot bari man tamit appel yi nga jot bari na ñeneen ñeneen appel yi na bi waa Ouzin cool yi bari na trop man ku ne woon na ma moment yi cool di am sax fekk na ma maam su ma nekkoon di ko toppatoo di ko réglé moo tax su bëri dama ne woon sax du ma si wax mais cool appel bu ne ngay jot ku jot man mii yàlla xam na ni. nee nañ ma man mii si lu mu fi man mii sax nee nañ ma si lu mu fi laa bokk. si nga man Babacar. ma si télé laay waxee de. man Babacar. du ma nekk naan ay sila bokk bokk ma bokk ma ci bokk ma ci. waaye wet na dama ne ku ma ku ma ma ne wax sila bokk. jeex na dem parce que xam naa may kan bu dee benn nit sax am na koo xam dama ko bëgg dama si siiw dama bàyyi xel am na yoo xam dinaa yoo xam dama si dugg. dama sori ku ne woo na ma naa ma ay lëmb dama dama naan waaw si bokk noppi nekk ci leneen mais xam naa suma bopp ma xam naa may kan xam naa may kan bu baax parce que lamb dafa war a dépasser yenn yi Ouzin lamb wax ju ñaaw xaju si wax ju si ay la motif la motif la motif di ngay wax ñëpp Ouzin coole mosoo gis ku la vidéo ngi nii xam nga man vidéo bi ma ay ay vidéo boo ngay xool xam ne lii du Sénégal nga xool xam ne lii bi nga wax ñëpp ñoo yor naa vidéo bi wala ana vidéo bi ñoo dañ ma koo flam flam nag la ñu wax dañ ma koo flam xam nga coach am nit xam nga coach Bakary nga nekk toog fi dem Europe nekk fa nekk fa amoo looy def taal sa live di wax lu la neex xam nga di so ay plus de di sosal ay nit. vidéo plus de nee nañ vingt huit plus de vingt huit vidéo démb dégg nañ trente vidéo mën nañ ne mën nañ ko yor Sénégal yor ko ay weer te génnew ko Sénégal maandoowul noonu. ci làmb te ci te ci ci làmb. même bu dul ci làmb sénégalais moom maandoowul noonu Sénégal amewul noonu sutura ko ay nga da génnee Sénégal daa maandoo noonu Sénégal amul nu sutura fii ku fi yoral sa vidéo xëy bii lañ paane la nag coach si Bakary moom laay wax man dama koy kaw dama koy tuwa euh, dama koy joxoñ baaraam tuuram coach si Bakary boobu dafa war a yem war a régler ay jamono defoon na ko fi ay promoteur génn di wax si ay promoteur man promoteur ko menacé na ko mu noppi di waxaat ñaata nit ñoo nekk diaspora nekk ca làmb di dundal làmb di acteur làmb abo borom seen bi mi ngi mi ngi mu ngi Europe saa su ne mi ngi xool lu jëmal làmb kam li nga xam ne mooy emploi jël si ay jeunes ñu wax ca làmb mosul dégg ñu wax si lu ñaaw ñoo ñooñu la làmb soxla mais pas ay coach Bakary ba pare intégré ñu si mel ni ay Adamo di wax Adamo moom laay waxal diggante Louga ak ak Woli soriwul de diggante Louga ak Woli soriwul moom xam na wax laa koy wax nag fii loo waxal ni mën na la ko waxal diggante Louga ak Woli soriwul. dafa mel ni da nga koy junj lu xëyee Louga yenn su Woli lu yenn Louga fanaan lu lu yenn Woli fanaan Louga ju dama koy wax nag wax laa koy wax nag. bu génnee waxaan nag ma wax ko luy loolu wax laa ko wax. maanaam ëmb ëmb ëmb ëmb la daal bu bu bu bu noppiwul maanu nga tekki. ma tekki ëmb bi wax la rek fii lu waay wax ni mun na la ko waxal fii ay le motif ñu làmb làmb Ousseyn bu dee dëgg nga bëgg a dégg làmb soxlawul ay classe ay ka Tukus Bakary ay Adamo ak yenn xeetu personne yi soxlawu leen si làmb xam nga làmb ña soxla ku si mel ni ay alburaax ay eh, Adja Baye Ndiaye gis nga li ngi créé lamb yi créé coow fexe lamb jëm kanam ay Mansour Ba di gisee mel ko si làmb xam nga ay ay Gaston production ñooñu noonu ñooñu la lamb soxla parce que gis nga ne ñu xool li ñu jël si lamb di jël si mais soxlawul xeet goo xamante ne nii ay yàq der ku ne may woo nag nan pël sorti bi mu def xam nga waaw ci loolu laa bëggoon a ñëw sax ci loolu laa bëggoon a ñëw pël ñoo ngi koy nuyu bu baax baax di ko masawu euh, ndax euh, jigéen euh, defe naa ne yenn yi ñu koy teg sa der neexul. neexul te metti na mais ñoom xam nañ ne euh, jigéen bu jàmbaare la jigéen boo xamante ne liggéey doo nga ko ñor ah chaque jour saa boo ko gisee ci li mu war a nekk rek lay nekk boo ko gisee ci loolu boo balaa nga koo gisaat làmb daa jot wala lu xeetook làmb nga koy doo ko tegaat bët ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy masawu bu baax a baax a baax di masawu képp koo xamante ne bëgg na ko di masawaat suñu bopp bu baax a baax keroog dañoo gis ah, bi coow lu amee mu def sorti di leeral ñu ci nag nañu dafa leeral parce que comme que dit dafa toog fee di wax di sànni rek dafa waroon toog jàpp njàmburam mais nag euh, genre des fois nit am na fu muy toll su nit waxee ay mbokkam duñu ko bàyyil ci noonu moom aussi tamit xolam du kii bi ko gisee mu def sorte bi d'accord nga ci mu génn def sorte. Ousseyn man xam naa pël bu baax jigéen jàmbaar jigéen ju mën góor la jàmbaar la bi muy dugg ci làmb dugg ci si ñàkk fayda te du si génn ak ñàkk fayda man xam naa kii pël bu baax xam nga am na yoo xamante ne nii du si dëkk gis na sortie bi pël def def ko parce maam day weddi pour weddi ni li ñuy wax amul wa def ko ni parce que ça veut day ton day tontonte ay nit non non dafa am ay soppe yoo xamante ne dañ ko bëgg ñooñu moo tax muy def sortie yi man appel bi ku ne jot na ma appel si ay soppe yoo xam ne dañoo bëgg pël naan ma non pël dañ ko bëgg lii li ko daal affaire dafa génn pour ay soppe ba ak ay am di jàmmam pour rassurer leen mais ça ne veut pas dire dafa génn pour sorti def ay pour ñaan njekk ko def pour nit ñi yërëm ko wala ko def pour euh, maanaam. pour tontanteeg ay nit amul jot tontanteeg ak koo xam ne nekkul si réew mi amul jot nekk fi naan day def pour setal d'état pour naan day tontonte wala day setal boppam amul jot def ko pour nit yërëm ko soxlawul ku koy yërëm ci loolu xam nga comme li ma si ba mu si si ñàkk fayda du si génn ak ñàkk fayda da koo def si juste que pour ay soppeem ñu ko bëgg ay am di jàmm mi nga xam ni xëy ñu ngi si toog am lu leen métti ñu dégg yenn yi wala ñu nekk si benn pression bi pël ñooñu moo tax mu def sorti wax ko mais bu dee j jàmbaar la man pël kenn ko gis su ñàkk fayda lamb doo parce xam na mooy kan bu mu si dugg tàggawul kenn fulaak faydaam moo ko indi fii ci làmb dégg nga sotti ba mu def nee na ku yor ay vidéo génne ko kooku kooku ragalul lu muy wax. kon kooku ragalul lu muy def te xam na boppam mooy kan kon bu doon kenn dina fi nekk di wax bu doon dina kenn dina ko waxee neneen mais xam na mooy kan te man xam naa ko bu baax a baax a baax a baax ba suba bu woon ay soppeem ak ay am njàmm du génn tontu parce que moom du tontatee réew mi. kon da koo def si dugub ay am di jàmbam xëy na xam ne ñu ngi toog si ruq am lu leen naqari dégg nit ñi te amuñu amuñu amuñu leen leer ñooñu la doon leeral ay soppeem ak ay am di jàmbam ñooñu la doon leeral mais pas ça ko ba day tontu ay nit ñu nekk si réew mi wala ñoo non doxewul noonu xam nga réew mi moo war a dépassé yenn yi Ouzin ay coow lu muti fii la wax fii en tant que jigéen nga bokk ak moom di liggéeyandoo ak moom li li li dal ko euh, boo amoon loo koy wax moom pël ah conseil xam naa sax mën nga ko mais lan nga koy soulager Ouzin affaire ba mu amee automatiquement dama damay génn wax parce que dama dégg lu ne ku ne di wax man génn wax mais dama toogaat ma ne boo génnee di tontu ñenn ñi sax day mel ni da ngay diran dafa am euh, di égal kii égalité bu am si diggante pël ak ñooñu pël ak ñooñu bokkuñu pël dafa am niveau mu nekk am loo xamante ne mu ngi koy liggéey ci réew mi kon jërëjëf ma la ma toogaat man dama def lu ma wax ma am si lu ma concentré focus woon parce que am lu ma doon toppatoo. ma nekkoon ci loolu mais boo gisee tey ma waxaat ci loolu parce que ça veut dire que ay soppe mag ay am di jàmmam ku ne may woo man tey suba rek nit woo na ma dama bëgg pël te li nga nit ñi di waxal te xaw ma na laa koy weddee mënu ma ko weddee parce que may wax mënu dem fenn xam nga moo tax moo tax moo tax ma ñëw si affaire entretien yi pël li ma fu mu ko teg tànkam foofu la nag focus si liggéeyam nekk ci li mu nekkoon kenn xamee ko si li ñàkk fayda kenn xameewu ko si si ay yoo xamante ni nii ku la gis xeeb la kenn xamee ko ci loolu na teg foo mu teg tànkam foofu la nekkul tey la war a mën a ñëw tey ay waxi nit ñu ñaaw ay nit yàqatu der war a tax moom mu mën a changé changé li nga xam ne moom war a dundee ni mu waroon dundee ni ko dundee ni mu waroon def comporté woon ko comporté woon ci làmb ni mu war a wax ñuy wax nanguloo liggéey kuy wër di wax mënu ñoo yem Sénégal gars yi ñoo am jot wax def ñu dara wax rek mais nag benn parce que dama koy wax làmb nag Ousseyn Diop bu yàqoo ñun am na ci part responsable ñun reporter yi. xamul tam maanaam si part responsabilité. Ousseyn da ngay gis coow lu ndaw affaire bu ndaw am. mu leer ni lii du coowal dara mun nañ ko faj. nga gis benn Babacar Fall jóge fële dem ci diw na ko dégg lu diw wax. ah diw moomu ñàkk xel tontu tontu tamit kooku ñu jugee foofu keneen jaar fee dem si supporter kooku na ko jàngatee kooku tamit miul parce que dafa bëgg di kooku wax fii kii jaar fii kii jaar fii kii wax xam nga reporter loolu moo yàq làmb Ousseyn te pourtant dool coow loolu mënoon nañu ko waxtaanee mu ne parce que diw boobu ngay jëli mën na ko jóonoon boycotté xam ne mais ngay gis ko jëli fii diw dégg nga le motif nga léegi yéen ak rafet loolu moo doxalul lamb kon ñun suñ biir war nañoo xoolaat suñu toogaay biir bokk reporter war nañ xoolaat seen taxawaay ci lamb parce que dañu am loo xamante ni chaque jour dañu koy tuuma dañu koy joxañ baaraam tuuma ñu ñoo yàq làmb mais lii dëgg la làmb bu yàqoo ñu loolu am na ci par responsabilité ñun Bécaye suñu papa El Hadj Bécaye Mbaye lii ci réew mi ba tax ñun ñu bëgg métier mi kon lii liggéeyul ci réew mi El Hadj am ca làmb ba mu jël def ko débat suñu papa moo dégg gis moo ma ko labaa xam nga ñoo ñëpp nekk ci làmb liggéey ci lu rafet xam nga kon tey waruñu ñëw ñun si làmb ñu ñun mujjee possible mu yuree suñuy loxo Modou Mbaye dama ko seetaan mu wax ci lu am solo def bantamba ba bantamba jeex ñëwul si débat ñoo si coow dafa ñëw fàttali ki nit ñi ñun làmb ñoo bokk ndey ñoo bokk baay comme ni ñu koy woowee ñëpp xamante ñu ñëpp kon waru ñoo defante lu ñaaw Modou Mbaye ñu ko lu am Ouzin yow mosu ñu laa gis nga wax nekk nga toog ma tax mais mosu nga jël nit naa ko de xas xas tontoo xam su ma xëy ma ko nuyu au passage mos nga dégg mukk coow am ay nii nii ba nii nii da ko coow li mu wax si kon tool gars yi jëli nit ñi ñuy wax ci ay lu motif ak di yàq deru nit ak di daal dene de nañ bàyyi yooyu am na leneen lañu mën a waxtaane ci làmb am luñu saison lañ jëm saison génne saison jëm mën nañ waxtaan lu jëmale làmb kanam combat yi neex taxaw na déwén nañu war a def ba làmb jëm kanam mais pas nekk fi di yàqante jëli diw loolu diw wax jëli diw loolu diw wax làmb yu porteur ñun il faut ñu xoolaat seen bopp lu ñuy def da xoolul làmb day yàq làmb bu làmb te am na ci part responsabilité bu mat sëkk sëkk sëkk sëkk xam nga dégg naa nag am na lobby bu nekk suuf ñoo jël xaalis ne diw boo waxee lii di nga ci am dara di nga ci gagné di nga ci gonflé xam nga. yooyu yëpp am na ci. dégg nañ ci ay tu ay turu mbër moo xam ne mu ngi woon Pikine fii jóge fi voyage dem muy Mopol. tukki maa ngi dégg ay suuf ne xam ah, moom lañ ko affaire ko du ma sori maa ngi toog sama roq di xaar na gaa yi wax bu gaa yi waxee dinaa indi ay leeral yu bari dinaa ko indi ay leeral bëgguma woon nag wax ci ay affaire de lomotif parce que loolu ay ñoo xam doxal làmb. mais bu après jàllee bu ko waxaatee naa indi ay leeral lu baax ci loolu. nit woo na fi benn tik tiktokeur bu mag ay dara. na ko dama bëgg a yàq bëgg yàqal ma mbër tiw ma fay lii ay dara na ko dof du ma def loolu làmb dama ciy wax luy rafet lu jëmale làmb kanam parce que bu am naa ñu ma bëgg dama loolu la influenceur di def maanaam koo xamante ni boo waxee réew mi dégg noonu la nga mel ku si mel ni ay dara duma def loolu parce que day yàq te man dama bëgg a defar loolu la loolu la loolu la soxla si ay influenceurs mais pas nga toog yàq diw diw lii la ma def diw diw ñu ci tudd ñëpp ay responsable lañ. lamb soxla leen du loolu lañ soxla ci lamb. reporter nañ amat seen too xool seen tooxaay si làmb ñu nekk ci lamb xool tooxaay si lamb nekkul lii lañ soxla ci lamb lamb dafa soxla xam maanaam wax ju rafet. ju rafet ndax làmb sunu consommation locale la suñu sunu lamb lamb suñu sport national la suñu culture la culture Sénégal la ngay gis. làmb rek moo si nekk culture moo moom lañ si salteel si culture yu am Sénégal yëpp te pourtant moo si nekk gën a culture bi nga xamante ne nii moom la culture noble moom lañ si boo xamante ne nii moom la gën a diaspora bi gën a jox bopp pourtant ñoo si gën a ñoo si gën a image bi moo si nekk image bi gën a salteel Ousseynou euh, si woon waxtaan ak moom ci làmb waaye waxtaan moom ci actualité yi nga am waaye ku gis na ni mu waxee euh, li mu wax rek moo ci nekk làmb rafetal la ñu war a def ñu ñi nga xam ne surtout ñoo bokk ci làmb rafetal dong moo ñëw parce que nag woo ñu mujjee poso bi di nangu poso bi di réew suñu loxo waaye nag di leen kontaane bu baax a baax kàddu yu mujj boo ko amoon lan la ñu tëj. waa kàddu murid gi di sant ñëpp di gërëm ñëpp bu wax ji jubee ñu xam ne sunu borom la bu dëngee ñu xam ne tamit euh, ku matul moo euh, jàmm bu matul bu xeebal moo doon wax moo moo doon wax. di jaajëfal ñëpp waaye di jëfal place bi nga ma fekk Ouzin Diop muy Fall business di nuyu pek ki xam ne mooy borom mi papa ja bu baax baax muy suma xarit. ma koy junni baax a baax a baax a baax mu nekk fii di jaay ay dàll ak ay moyen di ñëw moyen yaakaar naa ni gis nga li nga xamante ni ren nawetaan ren taxawaay bi am championnat bi tamit gis nga lu mu si taxawee loisir mu si defar ñu koy nuyu bu baax a baax Papa Dia ñu koy nuyu baax du nuyu waa Orange Money ñooñu su may xarit lañ du ma lim kenn maak ñoom ba dara du doon dara la maa ngi ñoom ñoon toogandoo di ko galerandoo ba tey waa Orange Money maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di ñaanal nag ASC jàkkaarloo day jouer suba suma ASC muy suba ñu koy ñaanal ndam lu sedd guyu ñu si woo ñëpp di ñëpp yox sàkku ñaan ci ñëpp ñoom mu ñu mu ñaanal ASC Jakaarlo yàlla may ko ndam suba ndam lu sedd guyu ñu wax gaa nañ dem seetaane si jàmm ñibbisi si jàmm xam nga yàlla may gaa yi ASC bi ndam ñu ñibbisi waat ci jàmm ñu bañ am xuloo bañ am xeex ndax ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi di la jaajëfalaat bu baax yow Ouzin na nee naa la du mën a yow du micro moo ñu boole donte nag moom moo ñu boole sax mais nekkul loo xamante ni fi mu toll nii moo ñu akam moo moo ñu liyee man ak yow man a yow ay frère lañ ñu seet lu ne lu ñu waxtaanee lu dul jëm si kaddu làmb wala liggéey bi sax moo ëpp lu ñu waxtaanee làmb ñu jaajëfal di jaajëfalaat bu baax baax pël maa national di ko jaajëfalaat bu baax a baax a baax a baax xam ci làmb rafet na na nekk ci lu mu nekk làmb moom nii la gars yi mosoo gis ñuy corné oto bi si ginnaaw bi si kanam rek la ñuy corné gars yi saa su ne kii bugguñu jàmbaar daal Sénégal voilà bugguñu jàmbaar kon jaajëfal naa ñëpp jërëjëf di leen jox dig daje beneen yoon seen làmb TV jaa ngeen jëf.